damaa def tax ne ko Touba rek. ne ko Touba rek. benn bis la laa jógee da ngaa jógee daa bëri ñoom lool daa bëri ñoom yal na yàlla guddee sama. waaye nag man de nan ko sot nan ko sot yaay boo waxee bay ñu. yëkkale ah bàyyi kii wala kenn nag bàyyi Cheikh demal. ah Amadou Diop sëñ bi war nga Amadou Alaaji Diop. barke borom daa barke. jàmbaar gi may bàyyi mu dem. bàyyi Serigne Bamba yi miin nañu la. dëgg la jotaayu Serigne Touba yi miin nañ la. ndax jikkoom. ko bu baax. bi Sëriñ Bamba jógee géej nag maam Thierno Birahim la woon ñu ko duyal ndab li mu daw dugg mbaakool sa kër maam. Ah. <laughs> Amar Kaba Jaxate sa maam daa ñëw Sénégal dem ngaa ñax jël fëri mëtëm ci Moussa fëri mëtëm. Ah. ay Cheikh. Ah. Moussa fëri mëtëm jur ku ñuy wax Lamine Yoro mu jur ku ñuy wax Yéeri Takku Caam a Sam Kumbam Sëgi Jéey. waaw Baba Ndike Xëri Njaay Masata Baba Jambe Baba Aymiru Baba Ahmadou Karam Masata Binta Madou Assa soxna jëng si la libaas sa maam moom la jox maam ma jël sa jaxate moom ci soxna Marema jaxate ak soxna Fat jaxate ak sëñ Alsaan ak sëñ Balla. dëgg la soxna Marema jaxate ñu jox ko kan. sëñ Bamba moom ca Cheikh Abdou Lahad. Daaray Kamil Cheikh Abdou Lahad. Ah. Kër Mag moom Cheikh Abdou Lahad. Ah. yokkub jumaa ji Cheikh Abdou Lahad. université ah. bi Cheikh Abdou Lahad. bibliothèque bi Cheikh Abdou Lahad. corniche bi Cheikh Abdou Lahad. sa maam kuy bañ a gis jëfam. bul ñëw Touba Serigne Cheikhouna ñu dëppee la kan sëñ Cheikhouna moom Cheikh Abdou Lahad balay sa buri Serigne Mbacké maram seer soxna bu sama ji baari koo bokkalul maam yaa ko gën maam waaye Serigne Sidi Mbacké la ñuy woowe sa baay soxna sa sina bi ko jur Serigne ma ñaaw solo la ñuy woowe baayam sëriñ ma ñaaw si la mu siiw mu kaag ma ba war na daara ji ni bamba ñaax ma seex bamba tas daala jo jox ko daaru defal koy murid mu gën caa waaru mbaakoon nga dëkk mbaakoon nga bokk yéeni tako caamakar san kumbam sëggi jeey baba njëkk xëri jaayan masata baba njambe baba cheikh cheikh cheikh cheikh cheikh yàlla yàlla ko jël cheikh ñetti mag yi waaye nag ñu fekk fi nag suñu xarit cheikh darmanko bi dalal ko cheikh dalal darmanko bi sëñ Axmadou bu baax mi sëñ Fallou darmanko sira xu jëkk mbaag daaru xu jëkk mbaag Fallou xu jëkk mbaag Anta Seck xu jëkk mbaag maam yàlla xu jëkk mbaag yàlla xu jëkk mbaag gay del nooy say maam ale demba sene mbagay sa maam daal di ko xujja dara meem ca balla xujja dara meeng maxtar xujja dara meeng mbargam mu ne ko soxna xujja kumba sëy sëy ba xujja kumba sëy day la kebe fan ma sàmb war xa jaañ aram joor benda fall lebe mbóoj sëy ba dëkk daga na ax maa nga tudd nga sant yaa nga kees di dimbalee waaye nga fekkoog sutu matar nga dëgg yi ak ma yëpp Masamba Faa Xujja ak Modou Faa Xujja Balla Faa Xujja Ngura Faa Xujja ak Modou Penda Buya Modou Faa Xujja moo jur sëñ kooki njegi si jeey aminta yàlla lan ko jox moom saa xewar fan ma mu am ca ndaag mare ma xëri maam Penda Buya aminta yàlla saa xewar fan ma ndaag jur Masamba gàtt ndaag Masamba jur Mor Jàndam aminta ñaan lan ko jox moom soxna loo jëpp ñu jox ko sëñ Cheikh Mbacke Gaynde fan ma moom ci Serigne Mbacke soxna loo borom tey fan bay la Cheikh Mbacke Muhammadu Rasulullah sa maam Makka la fekk baax mu woote ay mbokkam bañ yàlla ni ko jugal ma dem Madina waa Madina gën di woy talaaxal badru alayna Muhammadu Rasulullah war ca kaw gëléem nga ko naan sama kër lay jaar yi maa gën a yey ci gan gu toll ni Rasulullah yellaaw yoneen ni leen bu fi kenn coowa ndagam jëli ko gëléem gi Jibril la wax man na sama yellaaw mu dem kër Abu Ayyub Ansaar sa maam Miswa lislaam war a ma maam Muhammad ñëw Sénégal dëkkoo jigéen bi ñuy wax ngóone am ci gumba ngóone gumba ngóone moo jur gumba may mu naak pap paata may mu naa gumba mooy mu na ma meññ maam maxtaar mu weñ ma gumba suñu gumba say ba mu meññ Mamadu soxna Mbàkke mu gumba meññ gumba sama xarit mu meññ Seex Mor Fora Mamar sa maam ci Amar miñ defee caat góor yàlla muy sa waajur sëñ Galas ñëw nga foo war a Amar dikkee alhamdulilah ñu Gumba Naar Seeba ma ma Gumba sama xere rek Amar sama xere rek maam ma kartoom naam Amar Amar Amar Amar sa sa seex dañ doon dippee rek Baye Seex dañ doon dippee rek Baye Seex li nga wax li tax mu neex baax lu mu dem li nga wax la tax mu neex ceeb daal taxut a bari gan ku wàcc xam nga fa nga jëm. waaw dëgg la de. kañ ak kenn gënu koo nekk bete bete bàyyam ak yaayam ñëpp ay kañ la waaye bu rek yan yi jóg. jikko jëf seen jikko jëf waaye sëñ Seexu naa a tax ñëpp ut si lay sax yoon lay sax waaye ñëpp dañ koy tekki ak déem doom yi ndaw lay sax aw ñan la fay jëm waaye ñëpp koy wut tax njariñ ku judd nag di kafe waaye ku mag suukar sa bopp boo bokkoon fu baax te baaxoo yi nit ñi tekki naa ah. ndax ni ñi mënu dundee ko dem leen dundali fay bor waay loolu war ñaan ni nga defoon ba mel ni bu ko baye di jigéen foko ko diibalee muy aw way ba so ko baralee mu di taasu bàkke fi nga teg sa ma sha allah baax man ak ñaari won dañu dama damaa indaale radio tay su ma waxee gi par dama lay jël direct mu yalla ci FM asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ablaye Ablaye waaw. président néewul bàyyi gan ñaa ci kër ga amuñu loolu reere boo ko doon wax lii du leer. Ah, dëgg la de boo doon bàyyi gën naa la weer kon lii du des. waaye ji nga bor gi nga am gi nga am gi nga wóor sëriñ bi looloo bu la neexee bàcc bu la neexee da ngay jóg taxaw baab sama baab nag jom ji sama moo ne moo tax bu la neexee baab. Obrigado. Hallelujah. أكرم به سفرا فآس كل يدي خرجت بالجلف لله في سفر أكرم به سفرا فآس كل يدي خرجت في السبت في ساري ربي دعاء ييسس والجوال جيت ليسرني بكك خلدة وجيت مدلوغ في سفينة البر قد سافرت ساسدني وقد أخذت بنرقينا تزيل بها باء الضلال من آل السك والفنن زمرت على الدبجين سمع بكار باسم المؤمن الأبدي وقد أقمت بما سأل ربك فيه في سر الغائب فردا بنفوس فريد ثم ارتعلت باسم الله مؤمنا عليه والخلق لم يشرك ولم يلد وفي سبيلة دار الخلوة والتكمال يختار مولاك قوت الأمن والرقد تلك السفينة لم يذكر الى في ها قبل ذكرك في قرب وفي بوي ختمت في نبي المصطفى علما بنور فكر العزيم الفيض متقد أتى يداك بما قد فيقظ لك من فتر وبسر الورد مع السبب وقد نزلت بلا ريب هناك كي ترعى المناكر يا من فك كل يا من يراه سبيا لسيخ أحمد بندم كنت المعال فسلم لسيخ أحمد بندم يا من يراه سبيا لسيخ أحمد بندم حمد المعال فسلم لسيد أحمد بلبل ما بلغت وزاد للاك أحمد بلبل إلا المعارف كلا من مار أحمد بلبل خد الوجود جميعا في العصر أحمد بلبل الأولياء وجود وشمس أحمد بلبل وأولياء ليس يعرف من يغيب أحمد بل وليس يتنسى رسل إن كان باخد بل وليس يجر تنسل إلى بئين بل خوز وخيز مريء مسالم أزري بل خيز خير دار المال وسدر سكور آمد بندم إن الفدائل كل لزيك آمد بندم إن كنت طالب علم فزب لآمد بندم أو كنت رائم جود فزر لآمد بندم ñu koy ñaanal yàlla guddal aw faram wéral ay cëram ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye nag ñi ngi koo xamante ne nii moo di Serigne Modou Mbaye Kéré toog ne baax lool yaru lool yiw lool am lool ak taalu bi bëgg lool Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wax naa la sànq dinañ jàng di leen indiwu leen ci déwénu man a ñëw suñu seen bi muy ñëw ànd naa loo xamante ne si mënuñ ko séddoo suñu jëwriñ jëlee ci kaw di kon bu ñu ñëwee ngeen ñu jee jàppale duñ mën a def lu ak topp seen ginnaaw ndax mënuñu dañuy napp napp rek kon li ñu war mooy topp seen ginnaaw. ah tey déglu ndigal kon sant nañ bu baax a baax ah daayira yi nga xamante ne si ñoom ñëpp ñëw nañu gis na nit taxawaay bi ni mu rafetee wax dëgg yàlla gis na nit jàppoo gi ak bennoo gi wax dëgg yàlla mën na ni saa su nekk suñu toogee fii loolu ñuy sax ah di ñaan suñu borom bi ñu gën a dimbali waaye bis bu set ñoo gis firnde kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax kon yàlla li ñu li nga xam ne moom lañ ciy sàkku muy benn gi ak ànd liggéey sëñ bi yal nañ ci yàlla di dimbali bis bu set ba ci Seydina Muhammad ndax loolu rek mooy suñu euh, li ñu yitteel.

dulu tiga ratus dulu tiga ratus saya kata saya tidak punya kami nggak ada yang ada bahkan yang terjadi orang orang itu karena ini kita ini mungkin itu karena ini kita fokus fokus sendiri kita mengabdi kita mengabdi juga tidak ada itu tapi di situ pertama kita ikut kita tolak apa itu bapak yang terjadi tidak ada apa-apa

dalam kependengaran karena ini kependengaran ini karena ini sangat mengatakan bahwa sekarang ada hidup bahkan ada hidup bahkan ada hidup bahkan ada bahwa ada kendaraan di sana mau apa apa mau apa apa kenapa dia berbicara mau apa apa apa mau apa apa ketika itu Tapi kalau kita lihat pada hari ini, kita akan berbicara tentang

kubaikiro uwoya wewe mamalekata kudamu na hata kwa kuendelea na kama kuendelea na kuendelea ni kuendelea kama kuendelea kuendelea kuendelea sababu na kuendelea kuendelea na kuendelea kuendelea Thank you.